ca sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay maa ngi lay fay soxna si. ñu fekk ci place bu Wakaam ñu wax ni tey fukki euh, koor ak benn la ñu daal di gis ci tefes bi ñu bëggoon a xam yéen ñi nga xamante ni yéenay mool yi nekkee fi quand même noo leen jàngatee situation bi. waaw mét métti rek man Mamadou Seck laa tudd dëkk Wakaam fii nii situation bi vraiment doy na waar doy waar boo xam ne foo ko natt rek weesu na ko parce que vraiment lii lu mënoon a ñàkk la parce que ñun bi ñu informé depuis ce matin ñu wàcc géej ma man dañ ma oo dama sa doom gaal bi mu duggoon capitaine bi dañ ko jàpp bi ma déggee loolu ma daw ñëw mais heureusement biñ jàppee xale bi yóbbu nañ ko gendarmerie entendre ko mais biñ ko xoolee dañ ko confondre ak ñu doon dem Espagne parce que ñoom dañ doon dem des liggéey léegi nag man bi ma ñëwee géej ne fekk gaal bi gaal bi ay clandestin la yeboon ay nit maanaam ay nit la yeboon ban dëkka la jógee ak ñaata la ñun xamuñu fan la joge li ma mën a préciser mooy gaal bi dëkkul wakaam waaw dëkkul wakaam te tëmbewul tamit wakaam waaw waaw kii si jàppandi wax dëgg yàlla bu ma waxee dëgg rek mooy xaw ma xaw ma fu mu dëkk xaw ma fu mu dëkk wax dëgg yàlla. bon man fii ma nekk daal li ma mën a gis dañ teeral ko sama kanam ma gis koor yi nii bu may jox ay ay ay âge damay commencé 17 ans jàpp 30 ñi ma gis ñi ma gis laa wax waxuma ñi ma gisul ñi ma gis mhm. ñi ma gis daal jàpp naa ay 17 voire 30 ans parce que li ma si ma si gën a marqué si ñiñ teeral fi mooy xale bi ñu mujj a teeral kiñ waaw waaw kiñ mujj a kiñ mujj a génne ndox mi kooku moom vraiment xale la bu ma koy jox à 17 18 ans laa koy jox waaw moom laa moom laa koy jox bon actuellement pour être précis compté nañ 15 15 15 jours précis teer na fi nii léegi nag def du ñàkk des na yeneen mhm. des na ñeneen ñoo xamante ne ñu ngi si géej gi instant bi ni recherche dafa arrêté donc gaal bi gaal bi këppwul gaal bi dafa échoué gaal bu échoué ak gaal bu këpp du benn gaal bu këpp day chaviré def nii wala gaal bu diig dafay raser ak noonu mais ñaar yooyu benn amu si c'est-à-dire gaal gi dafa échoué xam naa ñi nekkoon si gaal gi dañu tëb du ñu tëbee ñu paniqué parce que diggante bii nii diggante fi fi ñu fekk gaal gi ak fi ñu wax ne foofu la gaal gi dal bu fekkoon ne ay xale yu man yu mën ndaw lañu amaana moo yi si am nii ndiggam dina am doon du bari du toll fii nii mais amaana peut-être seen ñàkk pay moo toll foofu ñi ngeen jot a génnee ki gën a ndaw boo ñu doon wax euh, waaw kii ma mooy li ma la wax rek. waaw mooy kii ma kii kii ma kii ma gis nii. kii ma gis naa bu ma koy jox dama naan 17 18 ans laa koy jox. Mm-hmm. waaw. am euh, waaw am naa si ay écho nag ñu ne am na ñaari rescapé. mais nag man gisuma leen nii réellement nii ñu leen di yóbbu. Mm-hmm. xamuma tamit fan lañ leen yóbbu. Mm-hmm. voilà loolu moom xam naa ko. d'accord alors euh, nguur bu Sénégal. wax dëgg yàlla fi mu nekk nii vraiment ñoom ñu ngi def li ñu man mais waaw góor day yokk góor lu dëgg léegi dañ leen gën a ñaan surtout ñii nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc si géej gi ñu jéem a def lu tout man tey bu ñu gisatee gaal buñ ñu gisatee gaal boo xamante ne bii wóor na leen gaal gii nii dañ soupçonné wala ñu am xalaat ne dafay def clandestin mu ngi jëm côté Espagne vraiment buñ buñ ko mënee encadré comme bu ñëwee ba si zone yu mel nii zone yu mel nii ñu bañ ko ñu bañ ko harcelé bañ harcelé gaal parce que boo ko harcelé rek boo ko harcelé bu gisee kii yu mel nii mën na dem yaakaar ne place la fekk na ay xeer la comme lii arrivé gaal bii donc man bon ne serait-ce boo ko toppee nii nga jékki-jékki def benn lentir sax mu dem ba yaakaar ne yow toppatuloo ko sax pour moom mu a moytu zone bi wala même buy teer sax mu teer normal nga xamante au moins dina am ay survivants à partir de là ñoom yàlla may na leen boo xamante ne bi ñoom dañ mën nañ def seen benn kii boo xamante ne mën nañ leen jàpp un à un wala jàpp si ñaar sax peut-être mën nañ tenter am chance a jàpp capitaine gage pourquoi pas mhm. mais lii nii bu ñu leen xojee ñu leen nii toppaleen nii ba ñu teer si xeer tamit catastrophe yu mel nii lay ndax néew yi sapeur jël na leen waaw sapeur pompier jël leen wax dëgg yàlla ñoom moom ils ont fait un bon travail def nañ liggéey bu rëy boole kaa suñu xale yi nekkoon fii parce que am nañ fi ay xale yoo xam ne plongeur lañ suñu doomi suñu jarbaat yi jàpp nañ si liggéey bi ñoom tamit sumeeku sol seeni combinaison de plongée ak seeni dem jàppale leen ñu xool waaw vraiment daal lii la yàlla dogal vraiment nag maa ngi ñaan maa ngi ñaan man Mamadou Seck en tant que professionnel nekk si plage Ouakam bii nii pendant trent cinq an xam risques yi nekk si géej maa ngi ñaan bépp parent fu waay mën a ne boo mënee wax sa doom sa jarbaat sa sët koo mën a waxal ku la si mën a dimbali koo si mën a jokkool waxal ak moom ñu téye xale yi si kër yi donte dëkk bi métti na foo nekk yàlla yàlla moo ma fa vraiment maa ngi ñaan bépp parent si kantanu yàlla baaxu Seydina Muhammad ak xam gi ma xam géej gi donte xamuma lépp maa ngi ñaan nañ waxtaan ak xale yi. ban ngeen gis néew waaw néew yi commencé nañ leen gis vraiment à partir de 7 heures 7 heures ba 9 heures 7 heures du matin ba 9 heures. d'accord ñu ngi teel koor koor bi mujjatee daal pratiquement xam naa ne ay 10 heures mooy normalement lay wote dernier koor bi. merci beaucoup merci beaucoup jërëjëf. fa mbokk internetu Dakar live ginnaaw bi ñu leen nuyoo bu baax ziar leen ñu leen di waxee fi nga xam ne moom moo di euh, Euh, tey nag li ñu fi indi bokk ci li nga xamante ni wax nañu ko ñu wax ni rek ay ndaw la ñu daal di gis euh, ñu daal di ñàkk seen bakkan ginnaaw bi nag daal di teersee fii ci euh, tefes bi li ñu wax nag ci lim bi ñu gisangum fukk ak juróom la maanaam quinze gaal ba li nga xamante ni moom ngeen di seen daal di jàkkaarloog moom moo yeboon ndaw yi nga xamante ni jot nañ leen a nemmeeku ñu ñàkk seen bakkan daal di teersee fii ci place bu wakkaam yooyu la information nag ñu ko daal di nangoo ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di yor ci gaal yi nga xamante ni ñooy faral di napp yi ci biir euh, géej bi fàttaliwaat leen gaal ba li nga xamante ni moom ngeen di seen moom moo yeboon ndaw yi nga xamante ni wax nañu ni dañoo bëggoon a dem ca tugal maanaam bitim réew daan fa seen doole waaye nag mu mel ni rek mujj ñoo àgg ndax fukk ak juróom ci ñoom ñàkk nañ seen bakkan ba daal teex teersee fii ci plage bu Wakaam alors dañ leen di bàyyi ak témoignage yi nga xamante ni jot nañ ko fee nangoo ngeen daal di taataan yooyu la xibaar jaajëfal déjà. waaw euh, tey ñu dund li xew ngeen nekkoon ñu nekkoon ci bi pour en tout cas sauver ñi nga xam ne mën nañ leen sauver wala repêcher ñi nga xam ne lab nañu euh, lan ngeen mën a raconter waaw comme ni ma ko waxee sànq rek à 3h32 di matin dañoo alerté pour benn pirogue bu chaviré au large de Ouakam précisément à hauteur de la mosquée de la divinité donc immédiatement on a dañoo déployé ay plongeurs. ak ñeenti ambulance pour ñëw def opération yi donc bu ñu accès sur les gis nañ fa déjà trois corps sans vie ak euh, ñaari rescapé rescapé yi gendarme yi ñoo leen jot a évacuer ñun ñu ñëw évacuer les trois corps sans vie donc à 7 heures démarré nañ opération de recherche yi 7 ba 10 heures repêché waat nañ 12 corps donc ce qui fait un total de 17 victimes 17 victimes yi 15 corps sans vie la ak ñaari rescapé donc euh, victimes yëpp dañ leen évacuer au niveau de l'hôpital militaire de Wakam hôpital Fann hôpital Dalal Jàmm ak le centre de santé de Yëmbal donc opération yi présentement dañ leen suspendre avec climat bi muy def nii mais dañ koy reprendre à l'issue bon loolu nag mënuma cee wax parce que déjà li nekkoon ci pirogue bi xamuñu ko euh, li rëcc xamuñu ko euh, li li li noyé également xamuñu ko mais tout compte fait ñun am nañ éléments yi nekk fii nii pour pouvoir les recherches. est-ce qu'on a commencé des corps. loolu domaine nu gendarmerie ñoom ñoo mën a déterminer ndax commencé nañ wala commencé wuñ mais de toutes ñoom ñooy def enquête bi à euh, comme ni ma ko waxee yaa am na ñaari ñaari rescapés ñooñu gendarmerie ñoo leen jël en compte. hormis cela ñetti jël si yëpp c'était des corps sans vie waaw. on n'a ces informations là. non on n'a de difficulté particulière ah. le le seul que on n'a pas l'information du nombre de personnes. donc xam nga loolu doo xam ndax da ngay arrêter les recherches da ngay continuer donc on est là on obligé toog di xaar. waaw y a association bu ñëw. à dix heures ñëw jàppale ñu au niveau de de la recherche de ces victimes là. Euh, non loolu jotuñu ko xam. loolu waa gendarmerie commandant martial Ndione commandant du groupement d'incendie et de secours numéro